bokki jullit yi bismillahi rahmani rahim laa uqsimu bi yawmi alqiyamati wa laa uqsimu bin nafsi lawwama أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق الله العظيم ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير وتكريما أعطيتني ما الخلق أنسى كلما مدى من ندري موت السلمايا كاباني من ماله كفوا أهدا بمال خير أكرمني بخلوها الله الآن ربي ولم يكن له كفوا عيان ناجاني الله مكرم السما تناجيا بي كفاني الكيان وجعل الأكرم أنفى الكرم والدري بخير من سريان أسأل كونتي الخسيدة خارقة لآلة مفيدة يا حي يا خيوم سل بسلام على الذي جاء بأسر الكرام على الذي جاء بأسر الكرام سل وسلم وتقبل ذا الكرام من على خير سدراف بما يفوق سنة من معروف لناسم يروف خلد ربايا يا من كوى مساخرور ونبايا بسم الله الرحمن الرحيم عبد المؤمن إلى السوانا سسي نرانا والتكفنا الإرمان والخسرين لنا أبي الأمن من المآسي يا من كفاني در كل عياسي منا علينا بدامة الخيار وطيبا لنا ممر وديار قبل جميع المؤمنين ما يسيد خير فلا يا ربي إنك المشيد يسير لنا يا ربنا السلام في شر والبلد والفلايا نبيت إبليس ومن والاه لخيرنا كنت لنا يا لاه وصبري لمن كل بسارة لو لنتو نسو ma wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yi yëpp ci turu sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda di fi nekkal maam Chanaye Fall bi ñu ñëw nag ñu ngi booleeg doomam sëñ am sëñ Xalifa Fallam sëñ Amdi Modou ak euh, Baye Cheikh Ndaw fekk nañ fi suñu mbokki baay Fall mel ni sëñ Mouhamed Fall sëñ Baara Fall Louga ak sëñ Modou Fall moom sëñ Abdourahim ak mbokki Baye Fall yëpp sëñ Sidi ñoo lay jot li nuyooyu am Amdi Fall moom sëñ Modou mbenn mi fi maam Serap Fall tey ak mboolem njabootu maam Serap gépp naka noonu di jaar bu baax di fi texal teewal si Ahmad sëñ Sërif Mbakke ñoo ngi lay jaar bu baax Mbakke ci turu sëñ Amdi soxna Kunta Mbakke moom sëñ Ahmad Faaral ñoo ngi koy jaar bu baax a baax naka noonu sëriñ Saalihu Mbakke. kon sëñ Mourou Moussa Dieng ak mboolem jamono suñu Fallu gi mu àndal ñëpp ñu kenn moo ngi saar bu baax nag mbooreem couleur yi nga xamante ni ñëw nañ ci Sarsara rawatina fédération bi nga xamante ni ñooy organiser bis bi ak bis yi fi jaar yëpp ci turu sëñ Modou Diop noo ngi lay bu baax ci turu sëñ Amdi fal moom sëñ Modou Mbedd na ko noonu ñoo ngi ziar bu baax nag njaboot ak maam Cheikh gi nga xamante ni ñoo ñu dalal ñoom lañ fekk ñuy liggéeyal Cheikh Fall naka jekk rawatina ki jiite yére bi mi sëñ Maajoor Ndiir ak mboolem Baay Faal sëñ baa ngi sant bu baax di leen jottali ay nuyoo ak i ngërëm ak i soññee te xam ne nag lépp lu ñuy wootal sëriñ Touba maam Serigne Fall ca war a jiitu wane ngeen ko nag ndax li ci ëpp ci Baye Fall yi ñoo yor wàccaay dalab sarsaara ba loolu sëñ bi gis na ko dëkk beet wàllu xéewal yeeg ak li ci aju yépp Baye Fall yee ko yor waaye rek looloo leen war ndax maam Serigne Fall kat mooy baalu murid diin sëñ Amdi Fall bam sëñ Modou Mbenn nag nee na lu suñ Tuubaa bëgg maam Cheikh dina ko def kon fu ñuy wootele sëñ Tuubaa rek na ngeen xam ne Cheikh lañu koy fay woote fu ñuy wootele sëñ Tuubaa ak lu ñu koy man di wooteel maam Cheikh Fall woo mu war a jiitu ca liggéey booba kon sëñ sëñ bi nee na yéen Baay Faal yi yéen a ngi ci li ngeen li leen war waaye nekk bu leen tàyyi nay mel ni ab soññee la rek lépp loo xamante ne war na fii ab taalibe Baay Faal yi ci war a jiitu la cay dolliku nee na mi ngi yi sëñ mun taxaay ndax Baay Faal amul lu ndigal nee ngeen góor góorlu ci te bàyyee ko xel tabaski yaa ngi jub te Baay Faal ku ne xam ne xitma mooy bi yi nga xamante moom la sëñ bi tànn muy liggéey ngeen waajal tabaski yu baax a baax ak liggéey yi nga xamante ni mu ngi ca dëkk ba buñ dee ma nag wax naa leen ko léegi mooy maam Serafal tax ñuy wax ndax daana wax ne man Ibra Faal de lu liggéey di maye lu ñaq di maye duma rus naa koo ñaan suñu borom nee na lu liggéey di maye rek rus naa koo ñaan suñu borom kon bañ ne ko sax sarti Baay Faal ñett yooyu la muy bëgg ak gëm ak jëf bëgg ak gëm ak jëf waaye jëf nag moo ca ëpp doole ndax nee na bàkkaar de bàkkaar yu bari astaxfirullah da ko dindi ñu ne ko faal lu koy dindi mun a liggéeyee sëñ Bàmba mu ànd ak ñàkk wi di tuuru kon ñu xam ne liggéey moo war a baay faal liggéey moo ñu war te sax ci ak taalibe dolliwaat nag te nee na ah doom njàng baax na lool de njàng baax na lool ndax loo gis danga ko xam waaye nag liggéey gën a wóor ndax loo bëgg am ko ñu ne liggéey moo gën a wóor ndax loo bëgg am ko daane am junni nag ak xam junni lu ci gën boo amee junni de boo xamee junni de doyut waaye boo amee junni nag lu lu junni ji jar rek mën nga koo jën kon xam-xam mi baax na lool waaye liggéey nag moo jiitu rawatina yoonu murid bañ na ko sax sëñ bi dafa wax jaamu yàlla ak liggéey daanaa doom jaamu yàlla baax na ndax dana tax am de suñu borom waaye liggéeyal yàlla nag dana tax am ngërëmal yàlla kon liggéey loolu sëñ am di faal di soññee ci taalibe yi ak ak maandu am na ci message boo xam mënut ñàkk nag ñu jàllale ko muy lan melaw Baay Faal lii lépp mooy li mu war a def waaye melow yi dafa am solo nag dafa am solo Baay Faal bayre bi nag xañ na moo bari bayre moom bari na lool ba ku mu neex nga dugg ci biir ba tuuma ji yaatu lool na xam nag Sëriñ Faal nee na ah doom ah tuuma baax na ndax dana tax a jàllale góor yàlla waaye nag tuuma ju dëgg a tax ñuy wax am na ci loo xamante ni ñu ci ëpp ñoo ngi ko jëfandikoo fekk ne dañuy tuddoo serafal rek te bokkuñu ci serafal nag serafal nag yaatal moo ko tax a jóg ndax Sëñ Tuubaa ne ah Ibra Faal yaa gore Ibra yaa gore damaa yor soo mbir denc ko ma yaakaar ne kenn du ko xam ngay lëñ lañu di lëñ lañu ba ñëpp xam ko ma jàpp na ba nga ko xamee nag da ngay yem moom ndax neexaayoo ak njariñ li nga jéebaane ko ba ñëpp jot ci kon nag maa ngi soñ sama bopp di sama soñ sama mbokki Baye Fall ne xam ne Baye Fall duy caaxaan Baye Fall duy caaxaan kuy tux walla ngay naan wala ngay sàcc wala ngay def leneen lu lu rafetul da ngay tuddoo Cheikh Fall dong waaye séqu leen dara Baye Fall mooy bàyyi lu bon bëgg lu baax kon nañ xam ne melo yi mën naa yaatu lool bëgg gi mën naa yaatu lool waaye nag Baye Fall lu Sëñ Tuubaa digle ci la ne lu sëñ Muntaxa bëgg ci la sëñ Amdi Fall mu du ne lu mu bañ loolu la bañ lu loolu nag lu loolu nag bokk ci yoon wi am na ci ñoo xamante nag dañoo nuru Baay Faal di wër di ñëw ba ci gànnaar gi sax am nañ seetlu boobu seetlu nañ ko di takk ay jaaro di takk ay long-long di takk ay lam yu kenn xamut ñu tudd ak ay buumi jaam yi di xeeñ xunn di wër di kar nit ñi di màjjal loolu ay tapp ay caaxaana loolu du Baay Faal am Amdi Fall nee na loolu bokk ci yoon wi serafal sëñ Tuubaa lu baax dong mu la am lu baax bu bu se bu se bu Baye Fall sellutoon sëñ Fallu du doon a Baye Fall te sëñ Fallu nee na moom Baye Fall la waaw njaboot sëñ Fallu gi fi nekk xam nañ li may wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu gannaaw bi sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonante bi sallallahu di sant comme ni ko sëriñ Modou Manda waxee léegi di sant chef de délégation bi nga xam ne moo bàyyi ko Touba ca Cheikh Mountakha Cheikh Mamadou Mountakha xalifatul am muy seen Sërif Mbakke am na Cheikh Mamadou Fadal jiite délégation bi nga xam ne moo jóge ca sëriñ Abo Baraka xalifa sëriñ Fall yàlla na fi yàgg loolu ci wér ñoo ngi nuyu sëriñ Sidi Mbacke Murtada moom mi nga xam ni moo yor kaddu Cheikh Mamadou Mountakha fii ci Mauritanie ak li ko ci lu leer ñu daldi nuyoo délégation bi nga xam ne ñoo fi teewal sànq ànd ak moom ki ci jiital di monsieur l'ambassadeur Serigne Moustapha Ndour di ko am yar am teggin xam li muy wax xam li muy jëf ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci ambassadeur bi rek yàlla na ko jukkal bu ñu sañoon maanaam gouvernement bi bàyyi la fi 10 ans ndax sa jëf ci Sénégalais yi ak ci jëf ci lépp loo xam ni ñu soxla nañ ko ci yow di nuyu représentant xaadir yi fi toog ak xabile yi nga xam ni ñooy am kóllëre ak sëriñ bi bi ci jiitu di sëriñ xaas misri bu maatam wulaati xam ni ba sarsaaray door ñu nag moom la woon xaas misri ba Sarsara di door ñu nag moom la woon ba bu ñu fa daan jógee di fa dem képp xéewal yoo moo moom la daan jëfandikoo moom la taalibe daan jëfandikoo moo ko gàddu ak xayma ya ak lépp moo nu ko daan defal ban agsi fii tey ba léegi bàyyiwu ko barki démb lañu jógee këram ca Matam la kon yàlla yàlla yu guddal fanam wéral ko ñoo ngi sant délégation bi nga xam ni moom la sëñ Abou Baraka yabal sëñ baa leen sant bu baax ni ma ko wax ni ma ko sëñ bi waxoon sax mënu ma ko wax ndax nee na bu sëñ Aboubacar Baraka délégation bi mu tànn bu ci tànnoon kenn rek kenn rek bu ko ci tànn mat na ko ndax sëñ Fallou mu ngi fépp foo dem gis sëñ Fallou ndax sëñ Fallou moo ne mooy Sénégal waaye délégation bi ko sëñ Aboubacar yabal nee na moom gis na ni bépp na ci moo ko waa fédération bi yëpp ñu ngi wax nag ci kàddu suñu mujjub Diop dañuy waxal mooy président fédération bi moo ko jiitee actuellement ak mbooleem ñu koy jàppale ci fédération yi kon képp koo xam ne yàgg ngi fi teeku di jullit sëñ baa ngi lay gërëm di la sant ci 19e édition bi nga xam ne mooy Sarsara nee na bëgg na ci lool ndax lii nga xam ne gis na ko ci bi mu dalalee tudde tur bi maam Thierno Ibrahim nii la mel bi mu ko waxee maam Samba bi mu ko tuddee sëñ ma sàmba nii la mel bi mu ko su tuddee Baabul Muridiina da ko rawat Cheikh Ibra Fall bi ko tuddee it nii la mel kon nee na mbokk yi sëriñ sëriñ bi nee na ngi sant ñëpp di sant ñi nga xam ne ñoom la bokkal mbakk gi fii ñu mbokk moom fii ci gannaaw ci gànnaar te xataluñ ko yaatal ko di ko déglu mi ngi sant mu ngi leen sant ñoom ñëpp rawatina sëñ Amidou Mbàkke ak ñëpp koo xam ne yaa ngi sant wala yaa Mbàkke wala ngay busoo wala nga jaar ko ci àll bi sëriñ bi nee na mi lay sant ci turu yëpp fédération bi nag sa fédération Seexul Xadiim sëñ ma Jóob nee na ngi sant waa organisation bu baax di sant waa finance di sant waa culture di sant it fédération des femmes ndax lu am ñoom ci njiital Xadi Njaay Xadi Njaay nee na sëñ bi nee na mi ngi lay sant bu wér ndax gis na taxawaay bi nga taxaw ba ñëpp topp ci yow jàppale la ba sasaarem leen xaalis bu bari nag daal la ñoom jigéen ñi jox ko bi ngir mu def ko ci sarsaara kon sëriñ bi ngi leen sant sant bu am bu am commencé waaye amul fu mu yem cheikh chérif mbàkke ibnu cheikh mohammed fadel mbàkke radiallahu taala anhu cheikh sidi mbàkke ibnu sëriñ moutala mbàkke représentant en mauritanie du khalife général des mourides chers collègues ambassadeurs membres du corps diplomatique, distingués invités, chers amis, frères et sœurs en islam, chers compatriotes, assalamu alaikum wa Je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa pour la faveur qu'il nous accorde de nous réunir encore une fois à l'occasion de cette cérémonie marquant la clôture des activités de la 19e édition du Magal de Sarsara. Je voudrais ensuite, au nom de l'ensemble de la communauté sénégalaise résidant en Mauritanie, souhaiter à Cheikh Chérif Mbake Ibn Serigne Fallou Mbake la, la chaleureuse bienvenue ainsi qu'à la très forte délégation qui l'accompagne et lui dire combien nous sommes à la fois honorés et très fiers de l'accueillir en terre mauritanienne. Je remercie vivement mes collègues ambassadeurs, membres du corps diplomatique, pour l'amitié qu'ils nous font de rehausser de leur présence cette importante cérémonie. Mesdames et Messieurs, Comme nous le savons, le Magal de Sarsara est devenu, au fil des ans, un rendez-vous religieux incontournable. Nous en sommes cette année à la 19e édition. Le Magal de Sarsara, c'est d'abord un moment de recueillement, une occasion pour la communauté mouride de commémorer le séjour de cinq années passé en Mauritanie de 1903 à 1907 par Cheikh Ahmadou Bamba Hadim Rasoul, séjour durant lequel il reçut le fameux wird Mahfouz ou wird Mourid. Mais c'est aussi un moment de réflexion, une opportunité pour revisiter et magnifier son œuvre multidimensionnelle redécouvrir, redécouvrir la richesse de ses enseignements, s'inspirer de sa pensée, mais aussi et surtout ancrer dans nos comportements quotidiens les valeurs spirituelles et morales prônées par le fondateur du mouridisme. C'est le sens même du thème qui est retenu chaque année Celui de cette édition nous invite à réfléchir sur la hitma dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. La hitma, qui est un terme très, très dans les milieux soufis, signifie entre autres rendre service à quelqu'un ou exercer une activité dans l'espoir d'obtenir uniquement l'agrément de Dieu et non pas un gain matériel personnel. Comme nous le savons, Le mouridisme se définit comme une aspiration à Allah, conformément au message prophétique. Mais c'est aussi une sanctification du travail et de l'effort, soutenue par une philosophie, par une philosophie profonde qui dépasse le gain matériel. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que le parrain de cette édition, cher Mohamed Fadel Mbake, plus connu sous le nom de Serigne Fallou est une incarnation des valeurs spirituelles et morales du mouridisme que j'évoquais tantôt. Je voudrais rendre hommage à cet érudit, à ce grand érudit, cet homme multidimensionnel, connu pour sa soumission inconditionnelle au chef, qu'il était loin de considérer comme son père, comme un père, mais plutôt comme un guide spirituel, comme son maître. Il était crédité du don de, vouloir, voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. Borom Naam Moam. Deuxième fils et deuxième calife de Cheikh Ahmadou Bamba, de 1945 à 1968. Il a poursuivi et achevé les travaux de la grande mosquée de Touba dont il eut l'insigne de procéder à son inauguration le 7 juin 1963 et d'y la première prière. L'anniversaire de sa naissance, le Kazu Raja, est un événement religieux pour la confrérie mouride. Mesdames et messieurs, en me félicitant du succès éclatant de cette 19e édition, je voudrais, au nom du chef de l'État, du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, exprimer mes remerciements à tous ceux qui y ont contribué. En premier lieu, Serigne Sidi Mbake, représentant du Khalif général des Mourides en Mauritanie, et à travers lui, l'ensemble de la communauté mouride en Mauritanie pour son dévouement et son engagement. Les autorités mauritaniennes ensuite pour leur soutien constant et précieux et pour les dispositions prises et les facilités accordées en vue du bon déroulement des activités, ce qui traduit la qualité et la profondeur des liens séculaires d'amitié et de bon voisinage qui lient le Sénégal et la Mauritanie. Le Magal de Sarsara est le reflet fidèle de la dimension spirituelle et religieuse de cette relation privilégiée qui contribue au rapprochement entre les peuples sénégalais et mauritaniens, frères et amis. C'est pourquoi j'aimerais conclure en élevant des prières ardentes pour la paix et la stabilité au Sénégal et en Mauritanie, car la paix constitue en réalité notre principale richesse. Et sans elle, rien n'est possible. Puisse subhanahu wa dans son infinie bonté, répand ses bienfaits sur nos deux pays et sur toute la Oumma islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa قال تعالى يا أيها الناس ibnu cheikh ahmadu bamba radiallahu anhuma alxalifatu thani li tariqati almuridiya wa shaxsiyatu laama wa huwa akbaru mithaal lilmuridi sadiq waqad jassada alxidma bi qawlihi yuxaatibu cheikhihi wa waalidihi mawlaana cheikh alxadim radiallahu anhu bi qawli biatu bunuwatiya bilirada lakum likay uxda bi xarqi aada min ba'di ma ishtaraytumuuha minni ahdaytuhaa lakum bi ghayri manni haadaa ash-shaykhu alladhii afnaa umrahu kullahu fi xidmati al-islaam wal-muslimiin wa laysat al-juhuud allatii yaquumu bihaa ibnuhu al-haadar ma'anaa ash-shaykh Shariif Mbacké illaa tajsiidan lil-maquula haadaa ash-shubhu min dhaalika al-asad fa-t-tariiqatu al-muriidiyya taquumu alaa al-'ilmi wal-'amal العلم والعمل الجوهران للخير الدارين يجمعان يقول الشيخ أيضا إني مجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن والشاهد إن الثرثارة تمثل رمزا للعلاقات الأخوية الراسخة بين موريتانيا والسنغال صرصار تلك البقعة المباركة التي يقول فيها الشيخ الخديم حمدي وشكري لمن كل به صار له رضا دون سخط عن صرصار له ثنائي ورضواني بلا سخط مفتاح لي من بني ديوان انصارا لله يكون لدى ابار مكرمه منها تحلى وفيها جم من زارا ان الذين الى صرصار قد قصدوا زيارتي فار بدار وزارا لهم هذا الخطاب قبل أن نهنئ أنفسنا ونهنئ الحكومة والشعب الموريتاني على اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي ليس ذلك غريبا فقد ظلت شنقيط عبر العصور منارا للإشعاع العلمي في العالم الإسلامي وأتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في نجاح هذا الموسم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على بلدنا موريتانيا والسنغال بالأمن والعافية والازدهار وسائر بلاد المسلمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى خديمه وعلى بركات الله أعلم اختتام موسم صرصار مبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمته المهداة سيدنا محمد رسول الله wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad asxaab alfadila alulama walmasaayix asxaab alsaada alsufara safir almamlaka almaghribiya safir jumhuriyati Gambia ممثل سفارة جمهورية تونس سيد سفير السنغال في موريتانيا صاحب الفضيلة الشيخ ماحي حفيد شيخ إبراهيم نياس أيها الإخوة المنظمون لهذا الملتقى السنوي المبارك أيها الإخوة المريدون أيها الحفل الكريم بإذن من سماحة الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للمريدين وبمباركة منه وهو يهتم كثيرا في هذه الجلسة لأنه اتصل بي تلفونيا أمس وهذا يدل على الاهتمام على مدى اهتمامه لهذه الجلسة ولهذه الفعاليات إذا بإذن منه وبمباركة منه وبالنيابة عن الشيخ أبي برك خليفة الشيخ محمد الفاضل وباسم أسرة الشيخ الفاضل وجميع المريدين والمحبين أزف إليكم تحية مباركة من الشعب السنغالي الشقيق الذي يربطه ببلاد الشنقيط وشائج القرابة وأواصر المحبة وقد ظلت هذه الروابط راسخة والشامخة على مر التاريخ أيها الإخوة لقد كان الشيخ الخديم رضي الله عنه يصرح كثيرا بمحبته لبلاد الشنقيط وكان يسميها أرض الصالحين wa yattadixu hada alxub jaliyan fi baytani lahu yuqaarinu fihima bayna algaybati albaxriya fi awaasiti afriqiya والغيبة البرية في موريتانيا فقال في الأول بايعته في البحر تحت الشجرة والبحر مزبد وحولي فجرة وقال في الثاني بايعته في البر تحت الشجرة والجو طيب وحولي بررة أيها الإخوة الكرام تعرفون جيدا أن الشيخ الخديم رضي الله عنه مكث في هذا في هذه البلاد أربعة أعوام تحت وصاية الشيخ سيديا من قبل الإدارة الاستعمارية وقد أقام خلالها في أماكن مختلفة نذكر منها أدباي قرب المرايعة ثم تنت مغزين ثم استقر في السرسارة allati kunna fihi ams wa bada dalika aqaama fi ljarariya bi'r alxayr wa axiran fi sahwati alma wa yusammiha alaamatu xumaak أيها الحفل الكريم خلال إقامة الشيخ في هذا المكان الطاهر صرصارا وفد إليه أعيان القبائل ووفود العلماء والصالحين وهناك في الصرصارة تلقى ورده المبارك المأخوذ من الله تبارك وتعالى بواسطة بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وشاء الله أن يكون أول من لقنه إياه العلامة العارف بالله المريد للفاني في حب الشيخ وهو الشيخ أحمد بن حسن بن حمادي الحسني رحمه الله تعالى هذا وتحتل الصرصار مكانة عالية fi qulubi muridina li wurudi ismihi fi kitaabati cheikh alxadim id yaqul xamdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inda sarsaara وتتجلى هذه المكانة في انتشار اسمه في الأوساط المريدية حيث أن بعض المشايخ يسمون قراهم بصرصارة رغم المسافة البعيدة بينها وبين العمق السنغالي ويوجد في صرصارة لحد الآن بعض الآثار المعروفة كالآبار التي يشير إليها الشيخ في قوله لله كل لدى آباء مكرمة منها ارتحلنا وفيها جم من زار وقد ربطت علاقات وطيدة بين الشيخ وبين زعماء القبائل وأقطاب الزوايا كما أسلفنا مثل الديمانيين والحسنيين والعلويين والتندغيين واليعقوبيين والكمليديين وغيرهم كثير أيها أيها الحفل الكريم لقد نسج الشيخ محمد الفاضل على منوال شيخه ووالده الكريم فكان عالما بكل معنى الكلمة تقيا زاهدا حليما صبورا لين الجانب سخيا متمسكا بالكتاب والسنة وقد أقام في أرض الشنقيط مع سنه وأخيه الشيخ محمد المصطفى خلال غيبة الشيخ القديم البرية fa kaana li tilka al iqaama kabiru l athar fi taklimihim arruuxi wal ilmi wa lahu kadalika alaqatun axawiya saadiqa bi ixwaanihi almuritaniyin fa kaana yataxaddasu yataxaddasu alxassani bi talaqatin mutanaahiya wa kaana shaaciran mufliqan yatadawaqu alshacra wa yantaqidu وقد مدحه الشعراء السناقطة بعشرات القصائد الرائعة ومن أشهرهم الشيخ أحمد بن حنبل الحسني الذي له 21 قصيدة في مدحه ومنهم المختار بن أحمد الحسني ومحمد يحيى الجكني محمد ومحمد بن مختار بن المعلى الحسني ومحمد عبد الله العلوي ومحمد عبد الرحمن السالك الحسني ويربو عددهم على العشرات وجدر بالذكر أن بعض أقطاب المريدية تعلموا في هذه البلاد ومنهم الخليفة الحالي الشيخ محمد المتقى حفظه الله أيها الإخوة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الوفد المرافق لي فإن أسرة الشيخ أحمد الحاج محمد الفاضل متمثلا متمثلة في خليفته الشيخ محمد أبي بركة تتشرف بإسداء الشكر للجنة المنظمة وفي رأسه وفي رأسها السيد الشيخ سيدي مكة ولجميع الإخوة الساهرين على فعاليات هذا الملتقى العلمي الروحي wa nasalu allah an yuwaffiqana jamian lima fihi alxeyr walsadaad wa taxiyatan xaalisatan min acmaaqi qulubina lilshacbi almuritaani alshaqi wa natamanna lahu mazidan min altatawuri waltaqaddumi walraxaai walizdihaar fi dilli qiyaadatihi alxakima wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilah alladi yusalli هرام بي منتقى مسلي صلى وسلم عليه في الآل وسحبي ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بسلاه ak kéemaan yi ñu fi def ak jaloore yi ak bool lislaam gi mu boole ci Sénégal ak yooyu Cheikh Mamadou Lamine xëy na euh, ñu bëri ci sunu maas bi sax jotuñ ko xam waaye li mu bàyyi rek ci ay jeexit ci kaw suuf doy na ci xam kéemaan gi mu doonoon ak li mu bind euh, loolu ay kéemaan yu rëy rëy la donc euh, ñu ngi koy séddoog ñëpp ñu xam ne daal édition bii di ñëw incha allahu fas yéene nañ ko fàttalikoo Cheikh Mamadou Lamine Bara nañ ko defee ren. dafa am am thème bu muy àndal wala bien sûr waaw thème yi saa su nekk day exposition boo xam ne exposition bi moom xam nga dafa am à part te dina am thème culturel boo xam ne buñ ci eggee waa ansaaru diin ak ñu ñu ko seqal dinañ tànn xool càmbar ban thème la ñuy tànn de ko ci waaye parrain bi daal mooy Cheikh Mouhamadoul Amine baara ginnaaw bi ñu jógee ci magam ju tedd ji di Cheikh Mouhamadoul Fadal.